hé eh, gars yi Coupe d'Afrique des Nations bii di ñëw Sénégal Gambie la nar a njëkk a footballal dama leen indil calendrier bi match yi kañ lañ koy football nang la nakal ak ban stade lépp dama leen koy leeral ci njekk ak teranga salaamaaleykum amateur de foot yi nuyu leen ku ci nekk seen tur ak seen sant mu ngi noonee gars yi kontaan naa ci seen i like commentaire partagé aw ma seen fay yàlla na yéen yàlla fay mu ngi noonee dugg gars yi ak ah, ci match yi nga xam ne Sénégal nu ko ful match de poule yi njëkkee ko kan Sénégal dañuy football le 15 janvier groupe C bi. waaye foofee ca stade eh, Yamoussoukro bi boobee di Konan Bani mu ngi noonee Charles Konan Bani Yamoussoukro si la ñu fubalee trois match yëpp nga xam ne moom lay waaj a lim noonee Sénégal ak kookee di eh, Gambie eh, deuxième match bi nag boobu lundi 15 janvier la mooy premier match bi Sénégal Gambie deuxième match bi Sénégal mu ngi ko war a football ak kookee di Cameroun le 19 janvier vendredi match boobu nar a neex na yëngu nag public camerounaise nar nañ faa bëri Côte d'Ivoire Cameroun xam nañ ci dara mu ngi noonee troisième match bi nag Sénégal mu ngi ko war a football le 23 janvier doon ab mardi mu doon match yoo xam ne nar na neex nar na yëngu man leen xaar ci commentaire yi yaakaar ngeen ne Sénégal mën na jël première place ak si je ne me ñaata point boo jëlee premier place ñaata point nga am bindal leen ma ko ci commentaire dama koo fàtte bu loolu weesoo gars yi ba tey comme d'habitude gis ngeen ni leen ko annoncé noonu dañ leen di présenté ki nga xam ne mooy Samu Global Business mi nga xam ne day jaay ay iPhone euh, Apple euh, accessoire Apple day jaay tamit euh, pro support yi nga xam ne pour portable la ñuy bëgg a def vlog ak youtubeurs yeeg influenceurs yi journalistes yi bëgg def ay interview ak iPhone yeeg yëpp lay jaay. képp ku ci bëgg da nga koy contacter ci numéro boobee di 78 441 63 81 mu ngi foofee ca Tëngéej en face euh, maquette ba nekk Colobane en face robinet Séréer nekk foofee ca marché Alizé mu ngi noonee Dakar képp ku ko bëgg rek da nga koy contacter ci njekk ak teraanga bëgg a yore portable bëgg a teg boo ko contacter mu defal la ko ci njekk ak teraanga ci yar ak teggin livrel la ko mu doon koo xam ni daal ku jàmbaare la dem leen soutenir ko dem xool ay produit am lépp original jàmm ci yéen gars yi ba beneen yoon ci neen vidéo merci à vous. Fassane sa liggéey bi nice na ok continue ko te positif xam nga da ngay réfléchir xam nga doo wax naka su dul noonu j'aime bien ñoo far. walaay ndeysaan. saa yi gerte la quoi. ñoo far. rek moo grand Diouf. mais bëgg nañ ci waaw. mais Pamada lan nga wax. Eh, wallaay ndeysaan <laughs> wallaay ndeysaan kese do continue quoi inshallah

لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا منا ومما لك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم naa moom seen yaay nañ kontaan vraiment. loolu la leen bu baax baax. si yaa tuur macha allah. yaa ngi leen yàlla def ay ciment. def leen ay ak jàng alquran Bye.